tëngërëm lañ leen di wax saa su nekk rek ñi safoo site internet di bës mtv Senegal bu leen fàtte di abonné di bës cloche de notification yi eh. ngir dara bañ leen a raw ci xibaar dal leen ak jàmm seen seen bi di bës mtv si seen acte du jour kiñ dippee omar saw di wax ci kàddu kiñ dippee amadou ba yëkkati ne ay kàddu di xamal sénégalais yi que ne bu fekkee ne kookee di président bassirou diomaye faye di dinay dissoudre assemblée nationale te loolee

lu leen bàyyi ci parti bi ñu dippee APR moom mooy que ne dañoo foog ne ci élection législative yi ñu nam ma jëm ci réew mii di Sénégal kookee di président Macky Sall ñoom la nama def tête waaye ne kii di président Macky Sall comme nam ma def tête de liste jigéen lay doon te ne si mel xibaar yu nekk di taw ci biir parti bii di APR dañuy fësal que ne ay Diop Fall lay doon. wala Thérèse Ndour Faye waaye ne ba tey xibaar yooyee di daw ci biir parti bii di APR du ay xibaar yu wër ndax ne ci élection législative yu ñu nam ma jëm ci réew mii di Sénégal kookee di président Macky Sall kum nam ma jiital daal di koy def tête de ci parti bii di APR du kenn ku dut Marème Faye Sall waaye kookee di Omar saw lu fàtte wax rek moom mooy que ne Amadou Ba mi ko yónni ngir muy wër ci plateau yi di wax li nga xam ne ne xaaju bay dëppoog lu am kookee ba tey amagul fitu daal di démissionné daal génn ci biir parti boobee di APR. donc bu ne ponkal yu nekk ci biir APR dañuy bañ a génn foofee ndax dañoo fokk ne dañ leen a bëgg a def tête de liste bu ci fàddee boole kookee di Amadou Ba ndax kookee ci ponkalu parti boobee la bokk te ba tey démissionné ginnaaw li ki ñu dippee Cheikh Bamba Fall te mu bokk ci leaderu parti bii di Pastef yëkkati na ay kàddu daal di xamal sénégalais yi que ne liñ dippee renégociation des contrats gouvernement wu kookee président Bassirou Diomaye Faye da taxaw temm te ne li mel dinañ ko amal ci secteur d'activité yëpp yi nga xam ne ne gouvernement bi ñoom ñoo ko occupé ci réew mi di Sénégal si li ni mel ki di Cheikh Bamba Fall ne. taxaway kiñ dippé Jean Michel Sène warna doy sénégalais yépp ndax ki di Cheikh Bamba Fall ne ki ñu Jean Michel Sène ginaaw bu ko kookee di président Bassirou Diomaye Faye tabbee ci bop bopp Laser kookee dal dinay renégocier contrat bi nga xamné né ne jaar na ci ASER ak société espagnole biñ dippé AEE PAWA EPC e, e, e te ne si li ni mel réewu Sénégal dal dina ci gañe lu bëree bëri mais taxawaay bobé Jean Michel Sen daldi am ne li ni mel le képp kuñ tank akup nombal gouvernement bu le di président Bassirou Diomaye Faye ci sa domaine bu spécifique né taxaway bobé lañuy xaar ci yow tamit ne li nga xamné dañ ko impossibilité né l'olé. du patriote ndax impossibilité possibilité buñ exploiter te ne lu leer ba am moom mooy que ne kookee di président Bassirou Diomaye Faye daa digal képp kum jox nombal tànk ngir kookee nga daal di xool lu gën a baax ci sénégalais yi te ne lu gën a baax ci sénégalais yi moom mooy ñu jële fi contrat yu bon yi nga xam ne ne yeneen régime yi signé woon nañ ko te réewu Sénégal di si du doon gis boppam. ginnaaw li ni mel juriste bi ñu dippee Ahmed Mbaye yëkkati na kàddu daal di koy jëmale ci daan yi nga xam ne ne mën nañ koo teg. ci ndodd ñi nga xam ne ne ñoom ñoo rey kookee di Aziz Dabala ak Waly te kiñ dippee Nabou Leye daal di ciy bokk si li ni mel kii di Ahmed Mbaye ne Nabou Leye ak yeneen suspect yuñ daal di jàpp te ñu njortu ko ne ñoom ñoo rey kii di Aziz Dabala ak yi ne ñooñee ay présumé innocent lañ ba ba muy am aku condamnation définitif ci seen jëmm waaye tamit ne ci jàpp buñ japp kookee dina bu lay ak yeneen suspect yi ne ci détention provisoire boobee juge d'instruction bi dal di teg seen ndodd ne détention provisoire boobee amut limite maanaam ne juge d'instruction bi bu ko neexee mu xaar ba 15 ans muy soog a wax ko ne kookee di Nabou Leye ak ñim àndal si lañ leen di soog a àttee ne bu fekkee ne akub nit dafa def akub délit ne kookee bu fekkee dañoo jël ab détention provisoire daal di koy teg ci kawam day am limite ndax ne kookee bu tëddee 6 mois rek par la force dañ koy génnee ci kaso bi waaye ne bu nekkee en matière criminelle maanaam liñ toppee ñoom Nabou Leye ne détention provisoire bi amut limite ginnaaw li ni mel kookee di Ahmed Mbaye daal di wëyal ne Nabou ak ñeneen ñuñ jàpp tuuma yuñ jël daal di koy teg seen ndodd bu fekkee ne li enquête bi dëggal na ko ne ñooñee dañ leen di tëj lu des seen ngiiri tund ndax ne ñooñee ñoo ngi leen toppee association de malfaiteurs maanaam ay nit yu déggoo di amal akub ñaawteef waaye tamit ne ñooñee ñoo ngi leen toppee assassinat ne assassinat nag dafa daal di uuteeg liñ dippee meurtre ndax ne ci assassinat day am liñ dippee préméditation maanaam aku waajal akub préparé ngir daal di rey akub nit te ne li ni pen bi moom mooy ñu daal di lay tëj sa ngir tund waaye tamit ne ñooñee dañ leen di toppee vol grave te ne si li ni daa am ñaari circonstances aggravantes bu si jiitu moom mooy que ne daa am vol en réunion maanaam nit ñu bëri ñoom ñoo ànd daal di amal vol boobee waaye tamit ne beneen circonstance aggravante bi moom mooy que ne vol boobee ci guddi lañ ko daal di defee ginnaaw li ni mel kii di Lat Diop di ancien ministre ci réew mii di Sénégal démb ginnaaw ba muy déggante kookee di Aïssatou Diop Fall yëkkate ne ay kàddu yu dëppoowul ak lu am daal di koy jëmmale si lu sabab ñu daal di koy wëññi daal di koy wax que ne bu génn ci réew mii di Sénégal kookee di Lat Diop ne ginnaaw bu ko policiers yi dogaale woon démb daal di koy tere génn ci réew mii di Sénégal ñooñee dañ koo laajoon passeport diplomatique am bu daal di leen di wax que ne yoreetu ko waaye tamit ne ginnaaw ba ko policier yooyee di bàyyi kenn tereewu ko ngir mu génn ci réew mii di Sénégal kàddu yooyee kookee di Lat Diop yëkkati nag xaajul bay dëppoog lu am ndax kookee di Lat Diop démb ginnaaw ba ko waa police nationale intercepté ci biir aéroport bi dañoo nangu passeport diplomatique am ba noppi daal di koy xamal que ne amatut possibilité voyager ak passeport diplomatique am bi waaye tamit ginnaaw bañ koy bàyyi ngir mu daal di dem ñibbi ñooñee dañ koo xamal que ne amul autorisation mu génn ci réewu Sénégal tant que ay dossiers yi nga xam ne da koo concerné dossiers yooyee élucidé wuñ ko maanaam koo koy di la job daa am si ay dossiers yi nga xam ne ne dossiers yooyee ba tey ñoo ngi en cours te koo koy di la job amul autorisation wu génn ci réewu Sénégal. tant que leeruñ dossier yooyee concerné kookee di la Diop ci justice bi ci réew mi di Sénégal lii lañ leen indiloon comme actualité ñoo ngi leen di jox dig daje ci yeneen i mbir incha allah